lam ci sang bu tedd bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yi sant Serigne Touba wax jërëjëfatee Serigne Touba jërëjëfatee Serigne Touba maa ngi yëkkatiwaat kàddu di kàddu nuyoo yoo xam ne am na fu mu tàmbali waaye amul fu mu yem ak kàddu ziar ko teg ci loxo. sunu sëriñ sëriñ Touba suñu seet Sidi Maxtar Mbàkke dana fi yàgg ci ànd ak wér di ñëw ci tànk yi nga wax muy tànk yu bare di ay tànk cant ci li jiitu ak cant feddali la mos di wax fii muy sunu taalibe ak def ko muy wéyjur def ko muy sëriñ ñu ñëw santaat nag ndax wax nga ko laata ñuy tàmbali li ñu génn tey ji sant si bu baax yàlla may ci ndam réew mi dugg si si bisimilahi rahmaani rahim génn ci si alhamdulilahi rabbil alamina muy élection yi ñu génn élection député yi ñoo ñëwoon fi it laata loolu sax fi ñaan yàlla may ñu ci ndam dam loo xam ni du rekk sax lañu ci am ci ay résultats waaye jàmm ji ci Sénégal am ak taar bi nga xam ni moo génn ci élection yi rek ñu féddale rek li fi nekk ci réew mi di dox te ay ñaan lal ko yàlla def nit bii élection ñëwit mel na mu daan mel kon ñoo nañu santaat ko ci loolu ndax xam naa ni ah, man de maa ngi xam yéeneem ak ay ñaanam ci li nga xam ne de yàlla moom a ko kon war naa ñëwaat fii sant ko ak nu résultat yi mënti te yàlla nag def na résultat yi baax nañu lool kon jëf sëñ bi loolu moo doon kàddu bu jëkk gi kàddu bi ci tegu mooy dañu dama jógee tukki yu bari xew fi sama ginnaaw ñu fi wàññeeku te nga wax leen léegi euh, ñu ñëwoon indi suñu njaal teg ko ci loxoom ci tedd yi ngir mu jottali ñu ko njaboot gi yëpp loolu weesoo bëggoon naa ci ndigalam itam ma yegg tayif ndax comme euh, lu ma boolee waa tayif la yàgg tuuti tàmbalee ci ki nga xam ni moo doon suñ mbàkki soxna lu ba ci suñ Abdou Fatah tey na Fatma ñu fi bàyyi ko ba ci démb kon ci ndigalam bëggoon naa ko yegg jottali njabootu Daaru Xudoos yëpp jaale boobu jottali wàlli jaale yi fi wàññeeku yëpp te nga lim leen léegi te benn bu ci ne woon nañ ci ab ndaw ak délégation di ñaan yàlla daal yàlla bàyyi ko fi mu yàgg fi lool sëñ bi ndëg wér ndax yàggam fii njëriñ la ci réew mi njëriñ la ci diine ji njëriñ la ci islam bi yëpp kon sëñ bi loolu moo doon ci gàttal gàtt na lool nag waaye sama xol laa ko tibbee te it mbégte laa ci àndal kon ma jottali la message boobu euh, di sant ñëpp ñi nga xam ni boole nga ma ñoom euh, si suñ Basiru xam ne mooy porte parole ak sa njabootu bopp ki nga xam ne ñoom ñoom ñëpp dañu jàpp te ma xam seen yéene ak seen dimbal kon ak mboolem responsable yi nga xam ne ñoom ñoom la am fii ci Touba ñoom ñëpp maa ngi leen di boole ci cant yoobu di ñaan yàlla yàlla yokk taxawaay yàlla bàyyi fi sëñ bi mu yàgg fi loolu tànd ko allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwani wa tamkin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ci ndigalul sëriñ bi ci sëriñ Tuubaa Cheikh Sidi Muxtaar ñaan suñu borom bàyyi ko fi lu yàgg lool tam ànd ko wér mi ngi dalal jàmm bu baax président de la république Macky Sall ak mboolem délégation bi ñu àndal di ko yëkkati kàddu yu cant yu bàyyi ko ci sëriñ bi ndax sëriñ bi moom ni ko ñëpp xame rek àdduna sépp maase di ko ñaanal mu yàgg fi daal ak wér ndax xam li muy jariñ ci adduna sépp waaye xam li muy jariñ ci lislaam ji te suñu borom itam nongul ko ko ndax kooku fi yàlla tegee mu nekk jëmmi sëriñ Tuubaa la woote bëgg jullit yëpp àndaloo nekk benn suñ borom defal ko ci ndam defar ko ci tawféex boo xam ne àdduna sépp teg nañ seen bët mu taxa taxawaay bu rafet tam ci lislaam ndax koo ko xam ku ne xam ne amul jënd yitte lépp loo koy wax te jëmul ci loolu sax itteelu ko itteem jëpp weesuwut lislaam ji ànd ba nekk benn itteem jëpp weesuwut njaboot gi kon kilifa bu mel noonu képp ku ko yàlla defal ku ne yëmul rek ci ak tarixatu murid waaye Sénégal gépp ñoo ko xam yéenam ci moom kon ñu ngi ñaan suñu borom bàyyi ko fi ba naa li nga xam ne am na ko ci lislaam am ci biir yoon murid suñu borom may ko kàttan ak wér ba lépp mu di la dalal jàmm fii ci euh, këram bu nga xam ne mooy Mbàkke Bari te ñëwoon fi siyaare si ci koor gële nuyu baax ci di la fay itam ne alxuraan santaane wa iza xuyitum bi taxiyatin fa xeyu bi axsani minha aw rudduha kon mi ngi lay dolloo nuyoo ci na mu gën a rafete ngir xam ne ñëw nga fi ci anam yu baree bari ndax ñëw nga fi ci nekk njiital réew mi ñëw nga fi itam ci nekk doomam ñëw nga fi itam nekk ab taalibeem nga ñëw fii itam li nga wax léegi siyaare si ko sant si ko sant sant si ko ci li weesu nga xam ci yéeneem ak ñaaram ñëw itam siyaare si ko ñi nga xam ñëpp ak njabootam dañ dañ wàññiku ci ginnaaw ñi ci ëpp itam yónnee woon nga ci délégation waaye tey jii itam nga ñëw ngir fetliwaat loolu ndax ni nga ko waxee sa diggal sëriñ Mbacké Soxna Lo ak sa diggal sëriñ Abdou Fatah àdduna sépp xam nañ ko kon li nga def sëriñ bi nee na bég na ci rafet na bu baax ndax yittamante weesu nga bàyyi ko ci ab tukki agsi bi nga wàccee rek nga daal di woote wax ma ne ma damaa bëggoon nga yëgaleel ma sëriñ bi ne ko bu ma ci amee digal dimanche damaa bëggoon a ñëw siyaare si ko jaale si wàll ko bu ma fi jugee bu ma ci amee digal dem ba Taïf jaale ji njëbootu ko sëriñ Cheikh Mbacké bi ñu ko ko waxee itam mu rafetlu ko bu baax a baax kon sëriñ bi nee na mi ngi lay santaat ak cant ci biiru cant rek lay doon ndax sant gi moom dafa mënta ñàkk ndax ni ma koy faral di waxee alxadisul si dafa wax ne al abdu lam yashkur nii maa lam yashkur man ajraytu ni'mata ala yadi nee na jaam bi santuma li fi santul ki ma jaawaat jaarale xéewali ci moom kon lim fi fekkoon jëbootu sëriñ Tuubaa ji daa ko def tàmbulee ci Cheikh Mouhamadou Moustapha ba agsi ci ñoom ñëpp bu fi mas a nekk Serigne Touba kala suñu borom booleel ci jamono lépp loo xam ne jëf na ko ci lu baax danga ko seer ba ñëpp dégg ko kon nag moom mi itam suñu borom boole leen jamono Serigne Touba yi boole leen ni ma ko seeree woon daaw ci di référendum bi jub si ndax moom ci boppam moo waxoon ci làmmiñam ne ñi xëccoo réew mi de yow la ci ëpp yaakaar. loolu nag kenn mënu ko weesu te loolu sëriñ bi ko wax ci làmmiñam naa moom ba tàyyi mu seere ne nit ku yaru la ku dal la ku am sutur la loolu nag doy sëkk ci ku mën jiitam réew mi wax na ci làmmiñ làmmiñ itam ne man ngaa yor réew mi seere na ko yoon kon wax naa ko waxati ko waaye fàttali di ci baax ndax nit ñi itam lu ci ne dañ ko war a xam ba nga fi toogee ba tey itam lépp loo xam ne xam nga ne yitteema lu mu jafe-jafe rek jéem ko ba def ko lépp loo xam ne mën nga ko ci yitte yi gi itam lépp loo ci man def nga ko lañ ca moom itam yéene nga ko kon nag loolu na xam ne nee na yëg na ko ñu la ci sant bu baax di la ci gërëm di ko seere taalib bi yëpp itam ndax lañ ko war a xam ndax euh, nit bu la dee jafe lu baax bu nit ñi tey war nga ko seere ba ñëpp dégg ko ndax bu fekkoon te lu aram la ñoo ko fi jëkk di njaboot Sëriñ Tuubaa daawuñ ko def kon nag na nga xam ne li nga koy jëfal ak li ngay jëf ci njaboot gi lépp xam na nga xam ne moom nga koy jëfal te yàlla suñu borom mi nga xam ne itam moo sàkk lépp te dara umpiwu ci moom teg na ci bëtam Sëriñ Tuubaa mi tax ngay jëf itam waxoon na ne képp koo xam ne defal nga ma loo man ma defalu loo mënul ku ma defal loo mënul ma defal la jom kon nag jëf moom du réer borom kon nanga xam ne loo fi jëf rek sëñ Tuubaa ma tax nga di ko jëf bu ko nit ñi gisul tam sëñ Tuubaa gis na ko moom mi nga xam moo fi nekk sëñ Tuubaa seer na ko te ci am solo kon mi ngi lay ñaanal suñ borom dimbale la ak mboolem ñi nga àndal ci liggéey bi ba mottali sa yéene nga xam ne am ci réew mi ba naal yëpp àgg ba ni nga ko bëggee suñu borom matale ko noonu ba yow sa jëm bopp nga xam ne li nga yéene ci réew mi suñu borom defal la ko ñaan mi la ko ñaan te ci ànd ak yéene te rafet njort loolu ci na rafet njort loolu tam ci na suñ borom daal lu ko defal mm-hmm. ndax xam na ne am nga yërmaande ci nit ñi te yaa ngi góorgóorlu ci seen soxla te maam tuuti lu ma mën a seere ci yow itam mooy xam naa ne moo gën a ñor ci si yitte bopp mm-hmm. te loolu yàlla rek tax ma di ko seere maa shahidnaa illaa bimaa alimnaa kon sëriñ bi mi ngi lay sant di la gërëm di nuyu itam ñi nga àndal ñëpp délégation bi te mu ci tuddee ministre de l'intérieur Abdoulaye Daouda Diallo di ko sant ca taxawaay moo itam ndax yaa ko fi yónni doxal ko doxale ko sa digg kër diine yi waaye mi ngi koy rafetal la mën di ko sant bu baax di gërëm. projet war ko mën a yëgale ne lépp yëg.